yarsi banihil xamsa dafay risa juróomi doomam yoo xam ne maatu fii taa onin benn feebar juróomi doomam yu góor tegaloo dee ca mu di leen jooy ci wayu wayu mën a wayu dog xol waay ndeysaan ma ngi naan aw daa baniya wa aqabuuni xasratan inda ruqaadi wa dam'atan laa tuqliu sabaquuha waya wa aanaquu lihawaahumu fatuxurrimuu wa likulli jambin masracu wa ida almaniyatu anshabat adfaaraha alfayta kulla tamimatin laa tanfacu wayu doy waar ndeysa sabaquuha waya seeto hawaaya maanaa samag rot muy maqsuur hawaa niki asa mu daal di xalbu alif ga yaa sabaquuha waya nee na loolu mooy loxatu loolu la ni maqsuur bi day tasniya bi moom alifam noonu lañu koy bañ ñëpp waaye bu dee maqsuur nag alifam moom ci hudayl dañu koy soppi yaa ñu ne hada asaya wala ni ki husali yi wax ni sabaquha waya masdar jëfloo masdar jëf ju mel na jëfi feelam bu dee bu bu dee feelu bu dee masdar moo xam ne mutaaddi la maddaam doon mu mën a am mafool ni ko feel di am bu dee lazimit mu mën a rafa faayil ni ko kii dafa loolu mooy jëfloo masdar jëfi feel mu ni bi fiilihi l masdara alxiq fi l amal yo jëfi rafaak nasab ku lu koy def rek feel la ko cosaanoo xaraf wu ko def ci feel la ko xaare masdar mu ko def feel la ko xaare masdar lisim jaamit la masdarum sulaasi yi moom ci jawaamit yi la bokk feel moo ca xaroo ak sifa alxiq yéegalal mas al masdara masdar bi fiilihi ci feelam fil amali ci jëf maanaam na nga ko ca taf fekk feel nag moo cosaanoo amal fekk nag mudaafan mbir mu muy lu ñu laafal bi akthariya aw mujarradan wala muy mujarrad min al wal idaafati bi aqyasiya aw maa al wala mu yore al bi aqalliya maanaam jëfloo masdar fekk dafa laaf door a dem di nasa bi mafool ak yooyu rafa fayil nasa mafool moo gën a bari ci jëfandikoo waaye mu nekk mu jarrat yorul al yorul laaf yorul laaf ñu di ko tanwin booboo gën xiyaasu ci jëf ndaxte boobu la door a gën a niru feel ndax feel moom toujours ci nakira la nekk feel du doon maarifa ci tankiir la ne daa iman kon bu masdar yorul al laaful ñu di ko tanwin muy muy nakira boobu la gën a niru feel kon moo waroon a gën a mën jëf moo ëpp xiyaas waaye teewul nag jëfandikoo mu daaf mi moo ëpp aw maa al wala mu yore al booba la gën a néew ndax lisim bu yoree al al ja dafa gën a fedd li dëgërug lismi yaam te bu dee lisim piir rek daal di sore jëf moo tax doo gis jaamit ju jëf dara jaamit ju rafa fayil maanaam jaamit ju nasab mafool wala kooku doo ko gis xanaa ndax rafa fayil ni ki nicma zaydu in kaana su nekkee fiilun feel ma bala masdar nag li muy mën a jëfe-jëfu feel in kaana su nekkee fiilun feel ma a an ju àndoon ak an wala maa mu àndoon ak maa feel ju àndoon ak an wala maa bu fekkee nekk na yaxullu dina mën a wàcc maxallahu place am booba lay jëf amaa bu fekkee feel ju ànd ak an wala ju ànd ak maa munu koo remplacer kooku du mën a dootu mën a jëf-jëfam feel ak an almasdariya tey dégg nga masalan soo ne yuj ajabanii darbu zeydin ams boo ko dindi woon darbu dafa yujibu nii an daraba zeydun amsi wala maa daraba zeydun ams an jéeg maami di masdariya kon it mu yorati maanaam darbu zeydin ams te kon an ak maa wala an feel ak an wala feel ju ànd ak maa mën na ko remplacer bu fekkee da nga ne yujibu nii dana ma yéem darbu zeydin amran gadan dafa mel ni da nga ni yujibu nii an yadriba zeydun amran gadan in kaana su nekkee fiilun feel ma an ju ànd ak an wala mu ànd ak maa yaxillu mën a wàcc maxallahu place am bu boobaa mu mu mën a jëf dégg nga aywa su ko defee jëri loolu tëb walis mi masdar ñeel na ismu masdar ba tey amal ismu masdar bokkul ak masdar ni ngeen ko jànge woon ci laamiya ah loo xam ni yenn xaraf yu yenn xaraf ya daan dikk ci cosaanu baat bi nekku ca te it amul remplace am moo tax lu mel ni idatun ji firi daal masdar la du ismu masdar te kat xalat min xurufil min baadi xurufil fiili biniyatuhu waaw wa ca waadat gisoo ko ci idatan lafzan wa qasdan waaye nag a jox nañu ko badala mooy haaw taanis ga kon ba tey masdar la dëgg kon ismu masdar dana jëf niki tey ida saxa awnul xaaliqi al mar'a lam yajid asiran min al amali illa muyassara awnu ismu masdar la ndax xalat min baadi xurufi al fiili biniyatuhu ana aana alifa nga fa woon kenn gisatu ko aywa i'anatan moo doon masdaram waaye ismu masdar bi awnan rek nga wax ñetti xaraf awn ismu masdar la waaye jëfloo nañu ko jëfu feel ida saxa awnul xaaliqi bi mu laafee al mar'a maf'ulam gisoo ko lam yajid kon bu fekkee wér na ni yàlla dimbali na ni waay lam yajid du am du fekk asiran lu jafe min al amali ci mibat ay mibatam illaa mu yasaran lu du muy lu ñu yombal ndax ndimbalal yàlla la bi ishratika alkirama tuaddu minhum fala turayan li gayrihimul wala bi ishratika ci sa ànd ak alkirama ñu baax ña tuaddu la ñu lay lime minhum ci ñoom kooku ismu masdar la masdar mooy muasharataka yuqaalu ashara alkirama muasharatan léegi kon xaraf yo waroon a ne ci feel ji dikul ishratan ana alifu ashara xalat bunyatuhu min bacdi xurufi alficli lafdan wa qasdan wa ma utiya badalan fa huwa ismu masdarin la masdaru dégg nga bi ishratika gis nga ma ngi daal di nasab kiraama muy mafool jëfu feel la def foofu bi mu laafee nag la jëf ji di bare comme yooyu yaari misaal seetal mudaafan wala mujarrad te moo gën di xiyaas gënul bare waaye moo gën di xiyaas aw itaamun fi yawmin di masxabatin yatiman yatiman mafoolu itaamun te moom masdar la wala mu ànd ak al moo gën a néew ni ki daifu nikaayati aadaahu yaxaalu lfiraara yuraaxil ajal loolu nag moo gën a néew ndax bi mu yoree al la gën a sore feel wa baada jarrihi alladi udifa lah kamil bi nasbin aw bi rafin amala wa baada jarrihi gannaaw ba masdar jaree alladi la nga xam ne udifa lahu moom lañu ko laafal ni ki misaal yooyu bu li muy lisima tax dana mottali ko mudaaf ilayhim bu boobaa nag kamil mottalil amalahu liggéeyam bi nasbin ci nasab mafool ndegam faayil la laafoon aw bi rafin wala rafa faayil ndegal ndegam mafool la laafoon moom mën na moom la ñuy wax rafa faayil nas laaf faayil jéggi rafa raaf mafool jéggi rafa faayil wala laaf faayil jéggi nasab mafool dégg nga ni ki ajibtu min surbi zaydin al asala ku naan adlem gi zayd kon surbu mas faayilam la laaf nas doora nasab mafool wala wala mafool ajibtu min surbil asali zaydun su fekkee mafool ba la surb laaf dellu rafa fayil ca kanam mën nañu ko raafal leneen nit di dégg nga ni ki zaraf ajibtu min intidaari yawmil jumuati zaydun amran mu laaf leneen moom masdar bi ni ki zaraf si doola rafa fayilam ca mujj nasab mafoolam ca mujj loola ajibtu min intidaari yawmil jumuati zaydun amran zaydun mooy fayilu intidaar loolu lépp jëfi feen la ci gannaaw bi mu laafee wa jurra maa yatbau maa jurra wa man raa fi litibaaci lmahalla fa xasan léegi li nga xam ne nag moom la masdar mi laaf mën nay faayil mën nay mafuul wa jurra jaral maa yatbau lay topp doon naat wala badal wala ci maa jurra lay topp lu ñu jar li nga xam ni masdar mi daf ko laaf ba jar ko suy faayil suy mafoon dana mën a am naat ju ca topp mbaale neen loola nang ko jar dégg nga tafal ko ci lafz ba niki surbi zeydin al asala bu fekkee nga sifa zeyd nga ni at tawili sàmmonteeg lafz ba lu dëgg wala nga mujje asala sax ngay mujje ajibtu min surbi zeydin al dharifi al asala léegi zeyd faay la xam nga ni ñu laaf ko kon lafz bi majruur la naatam bu la neexee toppale ko lafz bi azarifi waaye nag wa man raa ku sàmmonteeg almahalla place ba cosaan ba filit bàyyi ca tofal ga fa xasanun fa filuhu xasanun saxihun su fekkoo ne tey da nga ni min suur bi zaydin azarifu al asala ba tey baax na ndax zaydin mastara ko laaf waaye faayil la kon amoon na place rafa wa man raa almahalla filit bàyyi fa xasanun arabiyatun saxihatun du dag nga ni ism i'maalu ismi alfaa'il nu dem ka fi'lihi ismu faa'ilin fi al'amali in kaana an mudiyihi bi ma'zili wa waliya istifhaaman aw xarfa nidaa aw nafyan aw jaasifatan aw musnadaa wa qad yakunu nacta maxduufin urif fa yastaxiqu al'amal alladi wusif nee na ismu faa'ilin it ismu faa'il it dana jëf ko fi'lihi comme jëfu fi'lam fi al'amali ci jëf waaye ci ay sart nag bi an bu mu nekk maadeen fi zaman lu dul bu fekkee al la àndal la waaye bu amul al bu na fekk nag lil xaali la léegi la maanaama wala muy li mustaqbal waaye bu fekkee ni lil maadi mutlaq la fa la jóge ca la nekk ni ki nga ni zaydun daaribun amran amsi déedéet loolu du ko nangu gannaaw lu passé la da nga naan zeydun daari bu am rin am si mu nekk lisim xaas joo xam ne nirootul feen te laafeem it dafay doon loo xam ne lii mën na ko maarifaal ndax moom nirootul feen ndax lisim bu niroo feen laay dootu di nga xamee ni feen laay taarafu nakira lay doon toujours kon moom it laay taaraf bu niroo feen passé woon na ci ci du dëgg ci na mu ko waxe ci laafe yenu passé woon lu mel ni ki passé na ci buntu bële ci buntu idaafa bi ah misaal yi maa ngi sama xel mi moom bon rek xalaas bon yàggul sax dégg nga sart yi la ñuy wax adduwa de in kaana benn bu nekkee bi masilin ci berukaay an mu di walis maadam bu dee ismu faayil ji bu fekkee yorul al daal te jamono bu passé la dem kon dootu mën a jëf jëfu feel bu laafee laafe ga da koy yataarrafu bil idaafa wa waliyate mu méngoo istifhaman na fekk na sukkandiku ci xarfu istifham ni ki adaaribun zaydun amran amsi al yawma wala xadan waaye waxunu amsi bu dee amsi kay bul ko nasabal mafoon na ànd ak xarfu istifham aw xarfa nidaa wala xarfu nidaa mu sukkandiku ca sax ba tey min al musawiqaat yaa daariban amran aw nafyan wala daq maa daaribun zaydun amran al yawma wala gadan aw jaa wala mu dikk di sifa zaydun daaribun amran dégg nga dégg nga maanaa jaa rajulun daaribun amran sifa la wala muy musnad ni ki xabar zaydun daaribun amran ndax xabarit mën na dafa sukkandiku ci mubtadaam mu ni nag moo na nag ismu faayil ji xad yakunu mën na nekk naata maxdufin doon naatu man oot mu ñu xadaf urifa mum xamees na ko te bu boobaa fa yastaxiqu mu yelloo al amala la jëf ja alladi ji nga xam ne wusi fa tuddoon nañu ko mel naka fa mu sukkandikoo nga fa kanaatihin saxratan yowman liyuhinaha fa lam yadirha wa awhaa qarnahu lwailu dégg nga nee na na mu ko waxee baytoo ko jëkkoon maanaa bu fekkee nun ngeen di tëkku te da yéen a ngi mel ni kanaatixin ni ki kéwal guy mbëkk wail buy dañ saxratan aw xeer yow man abis li yoo hinahaa ngir na ko li yodifaha ngir na ko toj daal ba faiblesal ko falam yadirha taxul mu mën a wàññi dara xeer wa wa aw xaate kat faf na ca rappal al wail ga xar na xoo bee janam kon bu ngeen dalee ci sunu kaw yéenay gaañ nee nga wa qad yakunu naata maxsuufin xurib ni ki naatixin ay kawailin naatixin fa yastaxiqu ba mu yelloo ngir sukkandiku ga mu sikki ci mawsuuf mu ñu xadaf ba mu yelloo amal ja nga xam ne moom la ñu waxoon ba mu wa in yakun silata alfa fi lmudi wa gayrihi imaaluhu qad irtudi ba muy wax naan bu fekkee tàng bu passé la du jëf dama noon ndegam du silas al ndax bu dee silas al dafa gën a niru lesim ndax sila xam ngeen ni fi yàlla ca doon cosaan jaa alladi qaama aboo kon al ji sifatun sarixatun silatu al ah waaye nag sifa si bi mu nekkee sila dafa taxaw taxawaayu fiil moo tax kon mën na bi mu àndeeg al moom mën na daal di jëf fa yastaxiqu l amala ni ki jaa ab daaribu zaydan amsi waaw su fekkee alif ak laam la àndal mën na jëf-jëfu fiil ndaxte bu mu deenee silas mawsul la daal di gën niru fiil nag foofu faalu naw mifaalu naw faulu في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعيل فعال نك ضراب ولا مفعال نك منحار إنه لمنحار بوائكها نوقها السمان أو فعول ضروب بنسل السيف سوق سمانها ah donc suuqa mooy mafoolam daruubun sifa mubaalaqa la faalu nag mifaalu nag fiaal fi kasratin ci bu dee tere lay jëf yu tegtal jëf yu bare maanaam sifa mubaalaqa sa faalun ab defkat boo ko teg aji def rek mifaalun ab defkat faulun ab defkat sifa mubaalaqa yooyu moom la ni fi kasratin yett yooyu bu dee dañuy tegtale barik jëf nee na yooyu badilun remplace la ñu an failin ni failun doon na dasa mafool mën nañu ko min mifaalun dégg nga mifaalun ma ngi mel ni innahu la min haarun bawaikaha maanaam naaka yu duuf ya ay annuqa siman faalun amal asa a axal xarbi labbaasan ilayha jilaalaha ah aqalu aqala aqala maanaam kuy làqu ci faraysu bi wallaajil xawaali fi aqala axal xar bi waa ji waaye góoru xare la la baasan ko di solkat jilaalaha mbubbi xare ya ilayha jëm ci walaysa bi wallaajil xawaalif doonul ab tëbbikatu roni néeg ya xaalifatu cosaan kenn ab kenn la woon ci néeg xawaalif danañu ko wax ñi almutaxallifuuna an il xarbi radu bi an yakunu ma al xawaalif mu ne labbaasan jilaalaha mooy mafool ba mifaal innahu la min xaarun bawaikaha moom waaja muy tagg min xaarun ab lojkat la bawaikaha way duufi gëleem naaga ya naa nuuqaha simaan faulin ni ki daruubun daruubun bi nasli sayfi suuqa simaaniha nee na weñu jeesi gi dóor kat laag weñu jeesi yeeli yu duuf ya ca naaqa ya di ko reyal gan yi da koy tagg ci tabe ah shahid bi dikk na ko fa fa yastaxiqu mu yelloo maalahu la ko ñeeloon min amali jëf waaye nag waqal la néew na daa jëfi fiil ji fi failin ak failin failin ak failin yooyu yaari was nu nag seen jëf bariwul am na de dégg nga failin dégg nga inna allaha samiun duaa man daahu duaa mafulu samiun la naka noonu failu nit ataani annahum masiquuna irdi jihaasal kirmalayni laha fadidu ataani dama dégg nii dikkal na ma xabaar ñëwal na ma loolu wolof na dégg naa ni bu dee arab mu ni ataani nanga ataani dégg naa ni annahum masiquuna ñuy xot ay xottikat lañu irdi sama der mafaulu masiquuna masiqun failun la dañu koo jam jihaasal kirmalay ni mu ñaawa leen ba tuddee mbaam mbaam àll yu dëkk ci barab bu ñu wax kirmalay jihaas jamu jaxshin mooy doomu mbaam àll lahaa ñeel ko fadidun am coow ab coow wa ma siwa almufradi mithlahu juil fi lxukmi walshuruti xaytuma amil ismu faayil jooju nu doon wax bu dee musdar mas bu dee mufrad feeñ na wax nanu ay misaalam ba tey waaye nag la dul mas masdar te mooy tasniya ak jamu juila def nañu ko mislahu comme mufrad ma fil xukmi ci atteb nasab mafool wa shurooteeg sart ya muy sukkandiku su ca sukkandikoo mën a def la mufrad ma defoon bu fekkee da nga ni adaariboona adaariboona zaydoona maanaam ni ngay waxee adaaribu ni zaydoona su fekkoon da nga ni adaariboona wala adaaribaani wala nga mu sukkandiku ci leneen ah wala nga ni zaydoona daariboona amran wala zaydaani addaari baani amran du dëgg ba tey ladul mufrad mën na jëf-jëfi mufrad ci àtte ba ak charte ya te mooy sukkandiku ci nangam ak nangam wan sib bi bizil imaali tilwan wax fidi wahwa li nasbi ma siwaahu muqtadi waaw masdar ismu faayil bi wax nanu bi ñu war a jëfloo bu dul silas al na fekk bu mu doon tàng bu passé te na sukkandiku fi barab kooku mooy borom jëfloo wan sib nasabal bitil amali ak ismu faayil ba nga xam ne sañ na nga ko sañ naa jëf borom jëfloo la na nga ca nasab tilwan la ca topp wax fit mbaa nga xafat ko bu la neexee ni zaydun daaribun amran bu la neexee ni zaydun daaribu amrin daaribu amrin xafat nga ko daaribun amran nasab nga ko waaye waxwa moom muqtadin aji sàkku la li nas bi ma siwaahu ñeel nasab lu dul moom bu doon yaari ma fu la bi bi nga laaf benn lay doon nag ba ca des dañ koy nasab ci cosaan de nga ni zeydun mu'ti amrin dirhaman waaye doo mën a nasab yaar rafaay laaf yaar yëpp mu'ti zeydin te lu doon boo ko boo ko tënyu noonu da nga naan mu'tin zeydan dirhaman waaye nag la ca topp nag wan sib nasabal bidil i'maali tel wan wax fir waaw nga ni daari bun amran wala daari amrin waaye su dee yaar nag te dafa ni ataytu zaydan dirhaman su laafee benn ba ba ca te nga ni ana muati zaydin dirhaman wajrur awin sib taabi alladin xafat ka mubtagi jaahin wa maalan man nasab wajrur jaral taabi alladi xafada aji topp topp ci xam ngeen taabi yent la ci naxu kat al naat wa tawkid wa arsul badal taabi alladi aji topp ci maamool ma nga xam ne in xafada dafa nasaboog sifa bi ni ki daari bu zeydin dégg nga ah boo naatalee su la neexee naatal boo ko naataloon zeydin bu la neexee ni daari bu zeydin ab tawila wala tawili ka mubtaxi jaahin waaye dégg nga wa maalan man nasab man man naxat mubtaxi jaahin aji sàkku daraja wa maalan ak alal nga ataf ko ca ndax ataf taabi la bu la neexoon ni wa maalin nasabal mbaa nga xafa mubtaxi jaahin wa maalin mooy man naxada kani bëreet bàyyi tayeel kuy sàkku alal mbaa daraja day jóg mooy këj kani bëreet dem bu la neexoon mubtaxi jaahin wa maalin ndax taabi la ci jaahin wala nga ni wa maalan ngir sàmmoonteeg barabu jaahin ah kon day dexe naa wa kullu ma qurrira lismi faaili yutasmu mafulin bila tafaduli dégg nga fa huwa ka ficlin siiqa lil mafuli fi macnaahu kal muctaa kafaafan yaktafi wa qad yudaafu zaa'ila ismin murtafi macnan ka maxmudu lmaqaasidi lwari nee na kullu ma qurrira bépp atte bu ñu saxaloon lismu fail te nu doon ko wax booba ba tey kooku yotaa danañu ko jox ismu maful itam ba tey rek bila tafadulin ci lu dul gañeente ñooy yem képp na mu ko daan defee danañu ko mën a def bu dee siles al dégg nga kon mën na jëf ci tàng bu ne al kal al muata kafaafan gis nga ni mu ko nasabe kafaafan ay muata damir mustatira nga ca mooy naay bu faayil xam nga ni ismu mafol damiru naay faayil lay mën a rafaa ismu faayil damiru faayil la mën rafaa lu dëgg amadrubun azeydaani al aana aw gadan tu dal moom la ni yotasma mafoolin bila tafadul ci lu dul gay fa huwa moom ismu mafool ka fiilin siiqalin mafool ma ngi mel ni fiil ju ñu binaal ju ñu rakkabal ju ñu bi wér ci mafool fi maanaahu ci maanaam kal mu'ta dafa mel da nga ni alladi yu'ta rek kal mu'ta ku ñu jox kafaafan lu doy yaktafi day doylu ku ñu jox lu doy da nga war a doylu kafaafan gis nga moom mafoolu ñaareel ba mu'ta nëbb na damir ji waroon doon mafool bu jëkk moo di naayib faayil naayib faayil foo ko fekk mafool la woon woon ay wa kafaafan mafoolu ñaareel ñu bàyyi ko ci nasabam wa qad yudaafu mën nañoo lafza ismu mafool mi ilas min jëm ci ablisim murtafi in ju rafaaw maanan ci maanaa ci moom nga xam ni moo waroon doon naayib faayilam léeg-léeg mën nañu ko ko naaf laafal niki lan mahmudul maqasidi ku ñu sant ay jubloom moo di alwariu kumaandu mahsuur mahmudun maqasiduhu du maqasidu moo doon naayib faayil waaye nga faf ko ko laafal wa qad yudaafu mën nañu laafza ismu mafool ilas min jëm ci lisim murtafiin bihi maanan joo xam ne dafa rafaawu ci moom ndax moo doon naayibam niki mahmudun maqasiduhu mooy naayib faayil niki madrubun ku ñu dóor abduhu ab jaamam mooy naayib faayil léegi nga faf ko ko laafal mahmudul maqasidi day ku ñu santi jibloom moo di alwari maqasidu moo doon naayib faayil taxaw kullu ma qurira bépp atte bu ñu saxaloon lismi faayil ci ay jëfam fil xukmi wa shuruuti xam nga waxoon nañ te mooy ni danu noon bu yoree al moom jamono yëpp mën na cee jëf su ko yorul bu fekkee lil xaali la wala listiqbaali mën na jëf ci kaw su amee fu mu sukkandiku limoon na yu ñuy sukkandiku ya ak dàq ak nidaa oog yooyu mu ni loolee yëpp yottaa danañu ko ismu mafool bi laa tafaadulin ci dul gënalante lu mu la ni woon ismu faayil ji mën na ko bu di ismu mafool mafool waaye ismu faayil la muy rafaa faayil la ismu mafool li muy rafaa naayib faayil la fa huwa moom ismu fa mafool ka fi'lin ma ngi mel ni fi'l joo xam ne siigalil mafool yi dañ ko tëggal mafool nga xam ne naayib faayil lay rafaa fii maanaahu ci maanaam ni ki boonoon tey almuwataa ku ñu jox kafaafan lu doy yëkkata fii doy doylu dafa mel ni da nga ni alladi ka nga xam ne yotaa des koo jox kafaafan mu daal di nekk fi'l moom binaa lil mafool su ko defee ni nga xamee ni yotaa boonoon alladi yotaa kafaafan yotaa mafoolum bu njëkk mooy damir mustatir bi nekk naayib faayil kafaafan mooy siwa naayib damiru ñaareel bi maanaa mafoolu ñaareel ba ñu di ko nasab ba tey boo ko defee ismu mafoolit al mu'ta ku ñu jox na bëna huwa mooy mafool bu njëkk ba mooy naayib faayil léegi barabu rafaa la ne kafaafan dese nasab ga al mu'ta ku ñu jox kafaafan lu doy yaktafi day doylu wa qad yudaafu mënees na laaf za kii nga xam ne mooy ismu mafool moom it mën nañu ko laaf ilas min jëm ci lisim murtafiin bihi maanan lisim joo xam ne dafa rafaawu ci moom ci wàllu maanaa ndax moo doon naayib faayilam mënees na ko ko faf laafal niki mahmudun zeyd day mahmudun ku ñu sant la maqaasiduhu ay jubloom maqaasidu boobu ni nga ko rafaa mooy naay faal nga faf ko ko laafal niki mahmudul maqaasidi ku ñu sant ay jubloom day moo di alwariu maanaam mën nga ni alwariu ku maandu mahmudul maqaasidi ku ñu sant ay jubloom la ay mahmudun maqaasiduhu nga laafal ko ism ismun murtafiun bihi maanaam